asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam lil muridiya xafidahu llahu taala waraha wa ayadahu wasaada min nasrihi kon ci ndigalam ak kàddoom dañuy dellusiwaat fii di leen jottali kàddu yu bàyyi ko ci moom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 bari ji yàlla def ni mu koy defee at mu jot balaa ñëw dana woote wax ma ko ne naa ko yëgal sëriñ bi na ko sëriñ bi tànnal bis sëriñ bi tànnal ko gaaw bi ñu jëm mu wër cee ñëw ci biir ñëw gi itam yàlla def na hôpital bi nga xam ne liggéeyoon na ko ba hôpital ba tollu ci àgg mu war koo intégré ci bis bi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 nee na itam nag loolu kon nañ xam ne képp koo xam ne jëfe nga ndigalam dañ ca dañeeg payog suñ borom waaye dañ ca dañeeg payog suñ tuba ndax ñun ak bëggam rek lañuy ñu dàkk te loolu kat may fàttali ne jamono yu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mas na fi am ak màggal Tuubaa jub si am ñuy bëgg a def ay organisation di wax ne dañuy bëgg a yuuxoo président Abdou Diouf bi fi newoon boo ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jégee